mbokk yi suivre Lutte TV point com ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare comme ni leen ko defee saa su ne rek Fallou Ndiaye ginnaaw ba mu tëggee Tapha Mbeur ak Ada Fass mu ñëwaat ci beneen journée bu nga xamante ne journée espoir la rek ba léegi nekk fi di produire espoir yi mu war a tëgg nag yaakaar naa le 9 janvier incha allahu rabbi ci diggante Vedacia ak ki nga xamante ne moom mooy Youssou Ndour bu Tëngéej wala ci yeneen combat yu bare yu am solo ndax ak Baye Mandiaye numéro 2 ak yeneen combat moo tax ñu ñëw fii fas yéene waxtaan ak Vieux Dacia noonu lañ koy defee tamit ak adversaire am dama lay nuyu Baye la nga nuyu mbokki internet yëpp ñu waxtaan ci sa wàccaay ak combat bi maanaam fan la la mën a yóbbu maanaam ñu waxtaan ci combat bi en général maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw ah, Lamine maa lay fay bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ma jëlee suñu bi sant sama sant jaxaay mu jógee sant kulu ak lamb ak kulu kuy bëgg lamb ak kulu kuy bëgg Dacia maa ngi sant. waaw comme ma ko waxee rek le 9 janvier nga war a bëre sa diggante ak Youssou Ndour bu Tëngéej fan nga toll ci wàccaay gi. Lamine le 9 janvier pour naa lamb si rongoon sax pare naa ndax lamb boo wàcc ay 2 suñ ne bàyyi un mois si des bon soo paree doo la xam nga Youssou Ndour parce que adversaire yaakaar naa nekkul woon Youssou Ndour sa diggante ak ak ak Félix la woon ñu changé ko def ko Youssou Ndour bu Tëngéej. xam nga ko bu baax. non man nag sama combat yëpp Lamine man du sama habitude quoi dem di xool mbëri wala di ko xool ma xamal lu ma gëm lu ma liggéey laa gëm ma liggéey ku ko taxaw sama kanam lay daan loolu laa gëm mais jéem a xoox gesu sax wax dëgg si àlla mais loolu est-ce que du erreur war a bëri ak mbër ñu doog xool jéem a ko gëstu jéem a xool ay point fort am ay point faible am est-ce que loolu du erreur. dama xam ne état de forme bu andi mu ngi si sama écrit mu ngi si ñu may àndal. yaa ngi dégg bëre bu mu andi mu ngi fa taay ba mu ngi fa ba noonu rek laa ko jàppee man sama combat bi noonu laa ko jàppee. mais côté tactique ak technique tamit bokkul ak état de forme loolu beneen affaire la mbërëb da nga xool ne kii ku mën xatar bi la ku mën mbot la ku mën bëre bu gaaw la ku mën bëre bu yàgg la. xam nga ak ba Sathiès ak Xamsa ak rëg-rëg yaa ak Xamsa ak ak ñoom si ak ñoom Maama Lamine ñu la ëpp technique si làmb ji wax ma. amuñu la ëpp technique ku la ëpp doole amul bon Youssou Ndour man jaaxaluma taxuma jóg ñu ma tax a jóg après lan demee combat bi di ñëw wax la ñu ma ñu ma a jóg. Ah, Youssou Ndour instant moom war moo la war a tax a jóg moom parce que moom instant bi nee na ku di yow taxu koo jóg. billaahi maa ko waxoon de su taxee laa mu jam une naa la ko su taxee laa mu jam une minute na dëggal boo xam rek ngir yàlla. gis nga fi mujjee daan xale. xale ba nga xamante ne moo ko gënoon frais moo ko gënoon waajal parce que combat bi moom combat am 10 jours ci la ko jël mu ñëw bëreloo ko bëre bu yàgg daan ko est-ce que bàyyi nga xel ci loolu. mais loolu làmb la rek làmb moom di nga daan ko la mën làmb mën nga daan ko ko dal. non mën na wax looloo ko dal mais làmb dama la ne làmb di nga daan ko la mën mais nekku si man dama ñeexu ñebbeem. billaay dama ñeexoon ñebe soo ko jàppee na xam ne maa ko mën maa ko ëpp doole maa gën a capable fuuf billaay maa ko mën maa ko doole moom na ko leer. yee. yaa gën a capable Youssou Ndour. noonu moom xam na ma sax maa gën a capable ñoo bokk fi salle bi lay entraîné. fi fi ñoo bokk kësu bu ñuy entraîné parce que seen waa écrit yëpp ñu ngi fi liyantu ma leen yee. pour mu leer ah. loolu doy na waar de bokk ak mbër benn salle. loolu lu ñu ci mbir war a jàng. mais loolu sport la rek ñun dañuy dañuy làmb après làmb day jeex yee ñoo bokk benn menteur coach Bolo mu ñuy entraîné ak ñoo tan ñu lay entraîné mais man liyantu ma loolu ma xam lu ma liyanti le neuf incha allah ar bi génn suñu diggante ma def ko lu ma war a def dem ñibbi. yee dina yomb at bu génn nga def li nga bëgg a def. non nañ xaar ba le neuf at bi génn suñu diggante ba pare bu ñu jëflante ba pare lan demee di nga di nga ma seet si yow laay seet la le le dix incha allah. le dix lundi incha allah ma fekkaat fii salle may entraîné man entraînement mooy sama ma fekkaat fii salle may entraîné ma ma dina nettali combat A ba Z. léegi entraînement yi nan lay demee laa a xam moment moment bi ci ci ci ban ban ban ban ban programme ngeen. non entraînement pour l'instant trois séances lay def yow quatre heures matin dem dîner ñëw nekk salle ba benn heure bi ñibbi quatre ci ngoon ñu demaat dîner contact. fële yëg din ñëwaat trois séances daal la ñuy def chaque jour rek. trois séances deux fois ngeen dem dune. deux fois ak beneen saal. mais loolu doy na waar rek deux fois dune par jour. mais bëgg ndam rek xam nga tey soo ne làmba sa métier nga bàyyi lépp ndax làmb ba ndes ci fulak feex la ba ku la si gis du la xeeb ñun làmb lañ am mooy suñu métier. mais làmb dafa ànd ak récupération boo leen di entraîner di entraîner entraîner te du ngeen récupérer est que li ngeen soxla ci côté doole mun ngeen ko. mais waaw sant yàlla ñu ngi liggéey ak suñu mag yi ñoom Bas Sathie ñoom xam sa ñoom rëgg ñuy contact chaque jour def lépp yee mais récupéré bi du léegi après combat bi lañ jël lañ jël battement soo ko demaat yee ndax ñun lam moo suñu liggéey amuñ lu sport bon tey duñ ñëw di ko ñàkkal faire jamais de la vie yee côté côté côté liggéey bi ñeen nga ciy àndal côté liggéey bi maa ngi ànd rëg rëg Bas Sathie xam yaa ngi dégg ak ñoom Siteu ak ñoom Coly Faye 2 ñoo ànd liggéey ak ñoom Malamine ñoo ànd liggéey. yéen ànd chaque jour di entraîné. matin soir léegi ci fajar fajar gi moo moo si mujj. boobu war naa mën a taxaw de ñu ko fay entraîné war nga mën a am doole de. ma ñooñu su fa Youssou Ndoye ñëwoon amul ku mu fa a rëppal su ñëwoon foofu ñuy contact amul ku mu fa mën a rëppal bon moom taxuma jóg maa ngi dégg nag seen mbëri gox yi di wax di ŋawti ŋawti nañ pare. ñoom ñëpp seet laa fay daaj. te ngeen ngay daaj seet. laa fay daaj toog di leen xool amul ku ñu ngi nii di antenne salle amul ku si mën a yëngal duñu doon contact ñoom ñëpp laa wax bàyyi mas li ngay wax yow mi barki Serigne Touba Mbacke amul ku ma mën a yëngal foofu xam sa mu fa gën a ndaw sama booy dafa dugg mbapat rajaxale ñoom ñëpp jël seen nag ba ñëw barki Demba Ndiaye ba ñu mënta yëngal xam sa mënuñu ma yëngal. kon xam sa tëj na dafa dem foofu rajaxe ñoom ñëpp la daan. ñoom ñëpp la daan am comme daanu dëgëj yee ba ñu mënuñu yëngal xam sax man mënuñu ma yëngal. ok loolu am na solo dimanche incha allahu rabbi Forza ak Paka la ñu war a bëree noo gisee combat boobu diggante Forza ak Paka. man diggante Forza Paka la benn côté man mën naa ne Paka lay faral ndax benn jour yàgg na temps booy maa ngi dëkk ba dafa ma gis ne may dox rek boobu mu mu ngi mbapat man boobu xalaatuma sax naa naa doon mbër mu gis ma. na ma booy kaay ma ñëw mu ne ma da ngay bëri ne ko non man damay ànd ak sama mag di wéy mu ne dama bëri ji boobu ku ma waxoon naa doon bëri sax ko kii mu ne du ma ko gëm mu ne dama bëri ji ma ne ko ah, mu ne waaw mu ne bëri ji ba yàlla tey def man bëri ba nekk si arène ba toll fu ma toll nii ban pakala laay ñaanal yàlla yàlla may ko ndam. mais noo gise combat bu bu ñaan weesoo. pardon. analyse sa analyse. mais sama analise nag ñoom ñaar ay catégorie de taille leen quoi. ñoo bokk gabari ñoo bokk taay mais su nekkee wàllu compétir pakalak mu ëpp compétir ndax mu ngi génn di competir mais bu fekkee ñoom ñaar bëri nañ ci ñoom ñaar kan moo ëpp bari la pakala moo ëpp moo daax bëri forta waaw moo daax bëri ëpp doole non su nekkee cadre doole bi nag forta mën na ko gën a yokk maas mais pakala mën na ko ëpp doole bu daax xeex noo xeex moo wax dëgg sàll xaw ma ko dàq ndax seeraan dama dama dama suivre seen combat ñoom ñaar quoi lu bëri hmm. waaw suivre na seen combat. Zoss Alioune Seye 2. non que le meilleur qui gagne. waaw si que le meilleur gagne mais mais mais analyse quoi dama bëgg xam yow sa gis-gis quoi en tant que mbër. xam nga foofu lu ma fa wax damay juum ndax xamul ma leen dara ñoom ñaar. mais seetaan seen combat. waaw seetaan na seen combat mais xam nga lu sama yoon nekkul rek sa sa sama yoon nekkul fa ko waa. lu sama yoon nekk sama yoon nekk si moo tax. waaw ah, sa yoon mais sa yoon nekku ci mais sa gis-gis quoi laa bëgg xam ci combat bi. fooru Alioune Seye li nga jàpp ni lii fooram la gis nga ko mu koy bëre fooru Zos li nga jàpp ni lii fooram la gis nga ko muy bëre. xam nga lu ñu naan màggat ak jinne lu mu màggat màggat na deset nga la ñu tey Zos yàlla da kaa def du ragal Alioune na soraale loolu bu mu topp bu mu topp ne xale la te aussi magewee ko lu bëri su nekkee Zos mag mag na ko ko lu bari na bàyyi foofu xelam yee. bu mu ko xeeb na ko jox cër bu gëdd gi quoi. parce mm-hmm. que dafa am fu mu jaar ak ay ay booy ku mel ni booy ñaa ak ñoom guy. jaar na booy ñaa jaar na guy ak ñeneen ak ñeneen waaw. c'est que tolof tolof a ñëw rek jos nekk ay tolof tolof mais mbër loon woon comme yi waaw mais tolof tolof nag soo defarwaatee da ngay ñëwaat. Reug Reug bi mu gisee noo gisee kontaan nga wala da nga ne ko sawaay nelaw nga nekk woon da nelaw de ba bés kontaan nga bi mu ñibbisee lool ndax bu ñu jàppande xam naan am na doole. Siteu tamit daañu làqatu na de moom tamit. duggul fenn génnul fenn. waaw tamit di ko ñaanal ndam ñoom tamit mook Reug Reug ñoom maamale mi yëpp ma leen ñaanal ndam ndax ñoom ñëpp liggéey neen ku gis seen état de forme wala nga fekk la fu ñu liggéey xam na ne gars yi ñu ngi entraîné liggéey neen quoi. Mm-hmm. mobilisation loo koy waajee yow ak waa Jaxaay Kër Massar parce que tamit est-ce que jëmu leen arène daa mel ne arène bi ngeen jëm de. incha allah maar ngeen jëm non arena la. arena ba bëri na ay siège de. waaw ah, baax na incha allah xam nga ne ku ne vie d'Asia ne mobilisation incha allah Youssou Ndour bu andi benn kaar na ngeen ba ñëw awaa ah, équipe bi kese lañu sant ñooy duy ñooy yëngal ñooy daan ñooy ñibbi incha allah. xool ko fii nga wax ko Youssou Ndour lu ma la sant. yaag say yaa yaag say entraîneur kese ñoo leen bu leen duy stade du leen man maay duy maay yëngal maay daan may ñibbi lu fay neex maa ko fay def incha allah. dangay soppeeku nag boo ñëwee signature ak ay làmb nag xam nga nu mu demee <laughs> la waaye Lamine loolu làmb la xam ñun suñu aada dañoo juddu fekk làmb bon wax dëgg si yàlla suñu duggee rek beneen jëmm nag du ñun nag suñun nag wax dëgg si ku ñu xam ñun ñetti kese leen. mais suñ nekkee si làmb nag beneen nit lay lay nekkaat ndax ñun dañoo ne séeréer juddu fekk ngemb suñ kër ban moo tax suñ duggee si làmb rek nekk beneen nit ñu bëri sax damay dégg lu nekk sa waaye day day lii day lii fekk na yàlla xam na ne secret sax mosuma ko seex si ko suuf barke sëñ Tuubaa mais c'est que dafa nekk loo xam ne rek daa daane suñu deret la. macha allah kontaan naa ci tàggatoo. waaw dina on si la même seetaan rajëm rek waaw du nuyuwaat sama waa koñ waa jaxaay du nuyu 100 yi fa nekk yëpp 100 pour cent jaxaay yëpp du nuyu waa axlumbe sama mafia bi bu baax a baax a baax a baax a baax ndax combat bi seen combat la lu ko daree ba ba inter 19 si de Kër Massar fàttali ma waa Yaraax ay bu baax baax si combat ñëw mobiliser lépp taxaw dem festal arena daan yu sundur di nuyu sama waa dëkk Euh, ak que ak waa Lambaay ñëpp di leen nuyo waaw di di ñaanal sama gars nag ñoom Bas ñoom Xamsa ñoom ñëpp di leen ñaanal ndam seen combat yi yàlla may leen ndam di ñaan sama ñaari ñetti booy ma àndal Papa Sida ak Ndiasse ak Bamba di leen ñaanal su amee combat yàlla may leen ndam yee wasalaam